ahousubillah min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu alaa man laa nabiya baxda mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw sant yàlla julli ci yonantam bu tedd bi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare di leen baalu àq te di leen baal àq di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di ñaanal bu baax baax xalifa général de Mouride Serigne Mouhamadul Mountakha suñu borom yàggal ko fi lool tu wéral ko di ñaanal bu baax a baax Abdul Fatah Mbacke ibnu Cheikh Modou faadal suñ borom may ko fan wu gudd lool ak wér di ñaanal Serigne Dame Atta Mbacke xalifab Cheikh Ibrahima ibnu Xaadima Rasul sunu boroom yàggal ko fi lool te wéral ko mbokk yi ñu dellusiwaat suñu émission bi ñuy wax taxaw seetlu ñu di ko amale fii ci sunu site bi ñuy wax 24 actu ñu dellusiwaat tey fas yéene waxtaan ak yéen tomb bu gàtt tomb bii nag ñu ngi ko jëmale ci euh, euh, laaj laaj nag ci li nga xam ne am na ci ci li nga xam ne mooy li ci sunu borom daganal ak li nga xam ne tamit lor la boo xam sunu borom da koo tere yonante bi tere tere ko tey nag fi ñu bëgg a jëm mooy laaj ci ku loruwut ci koo xamante ni aajowoo ko du itte ngay laaj loolu dafa am danse bu ci nekk mooy yonante bi sallallahu alayhi wasallam da koo tere yàlla sunu borom tere ko ginnaaw bi mu diglee ne yéen ñi amut laaj leen yéen ñi nga xam ne dangeen ñàkk laaj leen. ba yàlla tudd leen cité leen ci fi nga xam ne ñoom war nañ leen a jox ñi amul fa muy génneloo asaka dafa wax ne nan ko jox nangam ak nangam foqaraaw ak miskin yi fi muy lim ci juróom-ñett fi muy génneloo sarax dafa wax ne nan ko jox diw sàngam ki ko aaj ki ko ki wax ne nan jox diw sàngam addiya kon moom santaane na la ku amul na nga laaj kuy joxe tamit da ngay joxe ci sa sagot kenn waxu ci dara waaye di laaj ci loo xamante ni yonent bi sallallahu alayhi wa dafa wax ne loxo bi nga xam ne moo féete kaw di joxe moo gën fuuf loxo bi féete suuf di laaj loolu li muy tekki mooy kon laaj danse def ci am ginnaaw xam na ne ñaari loxo yi jokkalante aw yiw bii féete kaw moo gën fuuf ndax bii féete suuf dafa laaj kon looloo wane na te loolu sax ci tegtal bi rek xam nga ne li féete kaw moo gën fuuf li féete suuf daanaka rek nit ki gën a tedd mooy ki gën a féete kaw mooy moo gën a tedd ki féete suuf kii laaj na tekkiwul ne dafa teddadi waaye laaj bi ñu jubloo wax mooy ki am ba noppi di laaj ak ki mos yolomaayu laaj mu dem laaj yonante bi dafa wax ne kii laaj demoon taxani aw sayu matt ca àll ba dikk xar ko jaay ko moo gën fu ab yool ci moom muy laaj toog ci kër gi di laaj Seydina Omar fekk na ku toog di ñaan rekk sax di ñaan yàlla toog ci jàkkar ji di ñaan di ñaan Seydina Omar dóor ko duru bi ne ko jógal yàlla du taw wurus du taw xaalis demal nga liggéey kon boo dee ñaan sax boo ko dee def da ngay ànd ak sababalu kon laaj danoo àgg nag ci dayo boo xamante nii dafa jéggi dayo ñiy laaj dafa bari dafa mel ni ñiy laaj ñoo ëpp ñuy joxe sax te lu ko waral mooy danoo ñam buntu laaj muy kii ki nga xam ne dafa war a jóge fii war a dem ndakaaru wala moo xam war a tàmba wala nangam amut paas kooku danoo wax ne na laaj lu toll ne paasam Dakar ñaata mooy paas bi 5000 na laaj lu tol noonu ci mbokk jullitam ak ay nit mu laaj leen lu tol noonu ci paas heure bu nu ko joxee cinq mille francs li mu war a def mooy mu bàyyi la ca des dem tukki oto waaye mënoo rek sama paas damaa manqué paas ak damaa dikkoon ci dëkk bi di laaj boo xëyee tey def ko bu subaa nga def ko loolu dafa araam yonente bi nee na luñ lay jox te du sa aajo xamal ne liñ lay jox mi ngi mel ne danoo dagg sawara di la ko jox maanaam kii laaj te laajut ci benn itte lan koy jox dafa dafa mel ni danoo dagg sawara di ko jox laaj nag dafa bari fa am na ñoom dañuy laaj ci turu jàmbur am ñoo xam seen turu bopp la laaj am ñoo xamante ni tey boo dajewoon ak fii ñi nga xam ne dañuy yelwaan nga xam ne ñoom dañoo waroon a joxe sarax am ponkal moom feebarut làggiwul dara jotu ko muy laaj laajin wu doy waar sax woo xamante ni kenn mënu koo misaal kar nit di ko laaj nettale nan ma ci lu doy waar loo xam lu xaw a naqare la sax jëm ci yoonu murit am na noo koo xam ne nee na dafa topp benn jigéen di ko kar di ko laaj mu daw nii mu wëlbati ko laaj ko na ko yàlla nga am am soxna jaara mu ne ko bëgguma ko loolu dara jëru ko ndax ki ngay laaj xamoo yow catholique la xamoo chrétien la xamoo ku mu doon danga koo gis rek mu doon jigéen di dox rek ci mbedd mi nga karka di ko laaj di ko ñaanal xamoo li nga koy ñaanal bëgg na ko wala bëgg ko yow miy laaj te yow miy laaj yow effort bi nga def ak coono boobu boo ko doon liggéeyoon di nga am yonante bi salaa salaam nee na képp koo xamante ni danga ubbi buntub laaj yàlla dina la ubbil buntub ñàkk dana la ubbil bunt boo xam buntu ñàkk la waxtu wu nekk ci laaj ngay def maanaam da gis ne laaj daa yomb daal dikk naa fii ci noo ma ne ko cerno jox ma dara cerno jox la nga génnaat jàll fële daal di ne diw sàngam jox ma koo ko jox la nga toppoo ko noonu di ko laaj te amoo benn itte bu tee nga man koo liggéey loola dafa aram bunt boobu suñu borom yonante bi salaa salaam nee na ku ubbi buntu laaj suñu borom ubbi la buntum ñàkk moo tax mbokk yi nanu xam ne laaj ci daroori la koo xam daa dem ba loru koo xam ne këram daa lakk wala ñu sàcc ko wala ñu def ko nangam kooku sañ naa dem mu laaj waaye li gën a bon mooy nga dem am na ci ñoo xam da ngay gis ñu dem ci jàkka julli balaa nit ñee taxaw def baqiyaatu saalihaat wala di nangam rek mu jóg taxaw man da seen mbokkam dëkk la laa xamante sama kër dafa lakk barki démb dara desuma ci mbubb mi ma sollaak te fekk na wallaahi la suñ demewul noonu même boo ñàkkee laajal waaye bul ci taf lu dul dëgg boo ñàkkee laajal neel man kat dama amul dara moo tax may laaj ndimbal la bëgg ku ma ko def waaye bul ca wax ne damaa lakkale wala damaa loola am nga ci ñaari bàkkaar am nga bàkkaarab euh, la nga wax du dëgg am nga bàkkaarab ñu jox la am nga bàkkaarab boo ko lekkee léwut li nga lekk sawara nga lekk kon nit ñi nan xam ne laaj yàlla da koo daganal waaye daf koo araamal ci béréb sàngam da koo araamal nii nii def di yalwaan yalwaan boo demoon tey Arabie Saoudi Màkka boo demoon ña fay yalwaan sax dañuy nëbbutu te ña fay yalwaan ñu ko yeyoo la ñoo xamante ni seen i tànk daa dagg wala amuñu dara wala nanga waaye daa dëgg ndax bunt boobu la lislaam dafa organiser nit ñi ngir ñu liggéey ngir ñu liggéey ak dimbalante wa taxawanu alal birri wa taqwa wala taxawanu alal ismi wala udwaan ñuy ci lu baax diw amut ñëpp xamandoo ne ne diw sàngam mënut amul nan ko dimbali moom mi laaj tamit na laaj lu tolloog itteem bu itteem jeexee mu bàyyiwaat waaye mënu waxtu wu nekk rek yow nga taxaw ci mbedd yi di laaj koo xamante ni dara jotu la amoo dara ngay laaj ci turu diw sàngam wala nang turu ka ngay laaj sax boo demee yëgu ko yow yaa bëgg rek def noonu di laaj am na mbir yoo xam sax ñi koy ubbi tamit dañuy ubbi mbir sàngam ne damay wër laaj mbir mi ngay sombi yow yaa nga bëgg a tabax nangam wala yaa nga bëgg a def nangam nangam loola ngay def mënoo ko kon bul sonal nit ñi nigal ba man ko yow mi jàngale alxuraan yi tamit xëy téeméeri xale xale bu nekk nga ne ko na indi ñaar fukk wala fanweer nangam di ko laaj te fekk ne jàngale alxuraan ak laaj amuñu benn rapport sax amuñu lee bu leen lee maanaam mën leen a wax ne diw sàngam day jàngale wala nang yonante bi danaan yelwaan loo ay taalibeem amul benn sëriñ kilifa fii boo dégg ne da daan yàlwaan loo kiim nàng ñi ko ci daan def ba dem ba koy def sax bu buñ koy def ñu ngi ko def ngir tarbiya xale bi xale bii kat ci bu nguur la nekkoon wala cedda la nekkoon wala mu ngi nekkoon ci kër buur wala kër baayam am xaalis daan lekk ay nangam nangam tey ñu ne ko demal nga yalwaani cere wala dëxin wala nangam ñu jaxaseel la ko jaxasel la cere ji jaxaseel la nangam kii boole ko jox la ne la ko lekk ko lii mooy sab añ tey rëy gi nga amoon ak yooyu nga amoon looyu leen ci daan dindi waaye bokkut ak lii xew nga xam ne nit kiy jàngale alxuraan li mu bëgg def mooy di jàngale man duma ma fayeeku te fekk ne li ngay def moo gën a fay moo gën a yomb moo gën a baax fayeeku te bis bu nekk téeméeri xale xale bu nekk bu xëyee indi la 300 weer wi ñaata la at mi ñaata la ñaata nga ci mën a am ci xaalis am na ñoo xam ne daanaka dañuy yelwaan waaye fi ñu toll ay ay sax dañ koo am yenn saa nga gis ko tàllal di la tàllal loxo nii lam lay tàllal yow miy liggéey di xëy la muy am yow mënoo koo am te fekk ne dara dara dara dëru ko fi mu toll bu ngeen xooloon image di nga gis koo xam ne day silmaxa te du li te yalwaan gis koo xamante ni tànkam dafa benn tànkam dafa deñ wala loxoom waaye tewu ko yalwaan gis ko ñaari tànkam deñ moom muy liggéey nga gis koo xam benn bëtam la moo moo deñ muy yalwaan nga gis koo xam ñaari bëtam a deñ te teewut day liggéey li nga man ci liggéey liggéey ko loola moo gën a lew moo gën a lew ci yow ngay laaj laaj li tax lislaam daganal ko mooy daroori mooy boo demee ba nara loru war ngaa laaj sa mbokk jullit nga laaj ko nii ñuy defi tamit jël ay seex ku am ay seex rek ne damay yalwaani loolu kenn tegu ko fenn kenn tegu ko fen ay seex nga jëm yaa ngi tamal sax xale yi ak ñàkk jom ndax xale bi nga xam ne da di ànd waxtu wu nekk nga dugg fu nekk ngay laaj di ngeen di yalwaan di yalwaan xale bi ñu koy jox xale bi bu demee ba màgg lu muy xam mooy yalwaan rek lay xam jàpp na ne benn effort du ko def du jéem a jàngi du jéem a def dara ndax waxtu mi ngi laaj ñu koy sarax yu ay kii yenn saa ñu jox ko ay lekk mu lekk lu neex rek lay am lu mu jënde xaalis yenn yi ñu jox ko lu mu lekk wala nangam xale boobu lool rek mooy xam da gis fii sax suñ réew mi Sénégal nga xam ne yalwaan yi daanaka Sénégal la siiwee nii am na ñoom dañuy jóge yeneen région ñëw ci région bi ngir di yalwaan si ndax seeni réew da koy aaye Sénégal nag aayewut yooyu xañ na ñu ngi koy aaye ci mbedd yi ak feux yi nii taxaw waaye mënuñu ci dara bu ñu jëlee décret tey bu subaa ñu deltuwaat ginnaaw état bi tamit loolu war naa xam ne état bu xasee ba jël décret daf ko war a appliquer loolu bokk na ci bunt yi ñu koy yabe ak yi ñu koy ñàkkale fayda saa bu jëlee dara na ko appliquer surtout loo xam ne léegi xoolal da ngay gis fii cerno ay seex yoo xamante ni yaayam da koy yalwaanal seex yi ñooy dem ba màgg ñoom ñaar ñuy ànd di yalwaani loolu kenn xamul lu mu doon yow yaa yar xale bi ci muy yalwaane ak di laaj nàngam xale boobu dem na ba àgg da ngay gis ñu ngi man la dikk na la sëñ bi damay yalwaan nga ne nga xool ko dara jotu ko mu ne la ab seex laa ab seex rek daa war wala ñoom ñaar ñu àndandoo seex yee ngi yalwaan kenn bañut ku yalwaan ku ko aajowu waaye ku ko aajowuwul nag loolu loraange la xoolal yenn saa yi nit ñi dinañ sarax ak yenn saa yi benn waay kar la rek fekk la ci xew wala fenn dikk yëkkati kàddoom ca kaw xañ na du ma ñi may wax xaw ma lu mu bëgg wax eh, sama nangam sama nangam laaj la laaj boo xam yow yoroo dara ñu nekk di la tagg di la wax di la wax di la wax nga xool amoo dara te wóor na wóor yàlla ne tey yoroo dara am na ci ñoo xam laaj gi leen di laaj dana àgg ñu dem lebi ngir jox la ko loolu xam nga ne euh, léwul mag ñii daa nga gis mag moo xam ne ndeysaan nit day dikk te kooko sax lu yàlla la koo xam ne da nga koy yaakaar mu dikk di yoxe dépasse benn dépasse la yoroon nga dikk ne ko kër ga dara nekku fa moom mu laajiwaat dépasse boobu ñëw jox la ko loolu lu baax la ndax xam na ne yow li nga koy laaj amoo ko mu dikk joxaat la ko moom féeteeg yàlla waaye balaa toog tuuti lu néew rek yàlla indilaat ko leneen waaye nag di laaj ci turu loo xam ne da ngay denc fi mu toll boo demoon Dakaaru gi wala fenn dañ lay won ay meubles yoo xam ne dañ lay wan diw muy yalwaan moo ko moom te diw moomu dara jotu ko diw moo xam saa bu xëyee kàddu ab këlam wala saa bu xëyee dugg ci marché bi saa xëyee topp bureau yi saabu nange am na ñoo xam ne daanaka loolu lan tey boo leen laajoon sëñ bi lan ngay liggéey du la mën a wax dara lim lay wax ah man de nangam dem ci kër daw diw sàngam boo ëllëgee mu dem ci kër diw sàngam nangam la ci gën a yéeme mooy ku ko joxut sax far kàddu yi ñaaw lay jëmale ci yow diw bàyyi naa faa dem ndax moom du joxe dafa nay wala dafa bon wala dafa nangam fekk ne kiy joxe day day seet li gën a farata mu koy joxe joxe nag ngir ragg sab der lu war la yenn saa yi am na ñuy joxe ñoo xam dañuy joxe ngir ragg seen ab der ndax bañ nga yóbbu leen fa ngay yóbbu nit ña fa ngay ñaawale nit ña bañ nga yóbbu leen fa loolu la waaye daal lii lu dul jeex la loo xam tuuti taw sëñ Saaliw da doon wax kuy wax lu xam lu ñëpp xam da nga cay wax tuuti lii nag waxuñu ko ne ngir danoo bañ diw sàngam bëggut ku joxe waaye nag laaj laajin wi dafa ëpp boo ne demoon tey Sénégal ñii laaj ñoo ëpp am na ñoo xam mbedd yoo xam duñ fa jaar maa ngi fàttaliku sëñ Basam sëñ Abdou Xaadir mas na ko kër sëñ Tuubaa gii dafa wax ne ñi fiy dikk di laaj di kar nit ñi di fi kar ay personnalité bu jamonoy màggal ñëwee nan ko bàyyi di laaj nit ñi loolu wut ak dëkk bi yelloowut ak kër gi te da ngay gis ñoo xam ne dañ fay dem sax duñ fa nangootee dem ndax parce que dañuy gis ne buñ fa demee bu nu génnee leen di kar ci mbooloo kenn xamul nu mu toll kenn kenn xamul nu mu toll di leen kar sëñ bi nangam nangam kii nangam waa ji buy dugg otoom daanaka day daw ba dugg buy wàcc otoom it noonu la ko xale yi ndaw yi di kare ak maire yi jigéen joo xamante ni yow mën ngaa fóoti ñu fay la mën ngaa bale ñu fay la mën ngaa def naa nga topp loolu rek bis bu nekk nga ñëw naa man sañcaan yi laa jóge nangam boo jógee sañcaan yi tamit sanc moom faaw nga nga nga def dara amoo waaye nag bul ko def liggéey am na ñuy liggéey ñoom yaa leen ëpp doole yaa leen ëpp kàttan kon demal nga liggéey dunde saw ñaq te wolof yi dañuy wax na lu lewut du law te biir bu ca regg ràgg kon nag mbokk yi euh, dañuy taxaw fii wax ji nag aw déggin la laaj aw déggin la laaj boo xamante ni jógunu dal ci kaw kenn kii def lii moo ko gën a xam ki wéru wéru mën a liggéey xam na ko ki wéru teewut nag dimbaleente moom lu yàlla la sa mbokkam jullit la am na dara jotu ko nga xam ne yaa ko ëpp doole yaa ko ëppale nga dimbali ko loolu kenn ko loolu dañ koo santaane sax waaye amaana def ko liggéey loolu lan la lislaam bañ waaye nag dimbalante xam ne diw sàngam yaa ko ëppale saaliwu ñag mi daal amul dara ah wala man maa ko ëpp ëppale tey jii leer na mën a xam naa ne boo demee këram xaw naa doy wala tey ji poosam woyof na ma jox ko lii ëllëg ma seetaat keneen ko mel noonu nangam loolu kenn aayewu ko ndax dañ koy def loolu moom Sénégal danoo xamante teraanga jooju waaye nag lii ñuy waxaale tamit ab góom la boo xamante ni tey kenn xamul da ngay gis sax ku lay wax ne la jéggal ma te lam lay wax jéggal ma am na da nga yow nga xam ni kii am na waaye dalaa saraxul lu tax da laaj bi moo bari ci moom moo bari ci moom kiy joxe dafa war a joxe ci sagoom teewut nag bu nu amee itte ju jara laaj war nañ koo laaj moom ndax ku sa kër lakk yoroo dara ay nit la war a jàppale ku nu sàcc ku nu def nangam sa loxo mënatoo liggéey kooku da ngaa war a laaj ñi nga fi kon mbokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di leen jox daje ci seen émission taxaw seetlu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.